alors euh, euh, day fanaanoo ay pétaawam ami per ami pétaaw yu koy yu koy yu koy feeñu donc gaaw jàmm yéex jàmm pour yéen ñi nga xamante ni euh, yéen ay seetaan yeewu leen tey ñaata signe ñoo feeñ Euh, comme d'habitude hein, man par ñett la rek. Mhm. yii fi dañu yaru ci ni ma ko nandalee. Mhm. chiffre 3 laa ko nandalee. Mhm. donc du coup par 3 rek la may jox sa su ne. Ah. donc Pape Cheikh dañuy tàmbalee nag ak cancer yi dañ leen di topp rek comme ni ñu defoon démb. donc cancer yi ñoom ñu ngi juddu en 21 juin euh, dem ba le 23 juillet. ah donc de la musique. Ah, plus ouais donc euh, ñoom nag nee nañ tànn nee na dinañ jànkonteel benn situation boo xamante ne nag mus nañ ko dund. donc ci yoon nag waru leen sonal parce que situation boobu bu dinañ ko donc dinañ xam nan nañu war a def ba mun a régler situation boobu wala wut ci solution mais dina nekk lenn nag loo xamante ne da leen di bett mais bu ñu fàttali ko ko mos nañ ko dund rek donc ils vont le prendre avec euh, déedéet keñ ah, baax na wax ko ni aay naa wax ko ni aay naa xoolal mu may tuutil naan tey ne ko saa ne wax ko ko donc les lions ñoom ñi ngi juddu nag en 24 juillet dem ba le 23 août ñoom nag tani nee nañu profito ci forme bi nga xamante ne moom nañuy xëyee tey pour mun a trouver ay résolution ci euh, ay résolution maanaam yu bees ñi ngi naan aussi euh, dinañ dégg nag lenn loo xamante ne dafa bare dinañ dégg lu bare maanaam coow beeg wax bi dina nar a bare ci seen kaw mais daal ñoom nañu jëlale parce que la plupart on dit y a une phrase là comment on dit ça le chien aboie la caravane voilà donc ñoom dinañ dégg coow bu bare mais nañ jëlale buñ ci def attention ba pare force bi ñu xëyee nag dina tax ñoom ñu mun a jëlale lépp loo xamante ne lu ñaaw nañ leen doon wax et puis ils vont pouvoir résoudre tout les résoudre euh, problèmes yi ñu am c'est quoi voilà merci c'est quoi ton signe Sagittaire. Ok, pour les vierges, vierges yi nag ils sont nés en 24 août dem ba le 23 septembre nee nañ que ñoom dinañ am benn forme boo xamante ne macha allah ils auront beaucoup de tonus et tout donc nañu ànd bossi bu baax ñoom it ak dal ndax information boo xamante ne tey dinañ ko dégg mais information boo xamante ne bette la dafa mel ni léeg-léeg dinañ la wax dara dafay chambouler sa life bi yëpp donc nañ ci ànd vraiment ak dal te xam ni que ak force bi ñu xëyee tey dina tax ñu mën su surmonter. seen euh, situation boobu ñu ngi naan aussi que tey dinañ am un excès d'enthousiasme boo xamante ne dina mun a indi contraire au déroulement li nga xamante ne moom nañu prévoir woon ben ça ça me fait peur hein, quand ils me disent que dinaa dégg lu mooy chamboulement moi je suis vierge. c'est vrai ouais. ah bon. Mm-hmm. vous savez ma de. ah mais li ci morom amee. dépassé ma ci plateau bi ma sabañ la ko ba mu saf. <laughs> c'était une question à ana wayam bi lu mu wax ci suba wayam bi lan la wax tey ci suba. <laughs> jaaraata waaw ku waaw ba def mu sànni ca xeer. waaw bàyyi koog rabbana. waaw te xam ni bésam dina ñëw. moo <laughs> <laughs> donc tey Pape Cheikh loolu fi amoon nag ci euh, tàddi tey ak ci gisaane. ci ci des ñu tas ko ñu. tànn jaagi de du waaw tànn jaagi de du xanaa da nga bëgg a toog ci doog kaasi gi. waaw waaw da nga bëgg a toog ci doog kaasi gi. waaw waaw ah. <laughs> donc le reste demain incha allah. merci merci merci merci kontaan nañu merci ci euh, loolu di euh, horoscope bi defe naa coach. dama leen di bàyyi ak moom tey. parce que ah day loolu. ah jaru ko solidarité on non c'est parti pour les exercices. ñu ngi leen di ñaan exercice yi ñu bëgg def nag ak coach bi yéen yéen a gën a yéen ci gën am solo. Euh, lu ngeen ci mën ngeen def ko seen biir kër parce que sport mooy meilleur médicament mu ngi nii nag taxaw euh, euh, jingle ñu enchaîner tout de suite ak fitness. c'est parti. yéen ñi euh, yeewu donc mën ngeen topp. Euh, euh, bonjour tout le monde bonjour coach. ravi de vous retrouver ce matin. nous aussi on est content de retrouver. donc comme l'a fait hier. Mm -hmm. avec le poids donc avec le travail donc du centre du corps. Mm -hmm. ça va yes? ah, donc ce matin on va travailler le haut très important donc la poitrine. Mhm. et les dorsaux. voilà premier mouvement il faut expliquer encore chez vous si vous avez des petites haltères. Mhm. Asseyez-vous là sur la face aux téléspectateurs. Mm. Parfait. Les coudes vers le haut. Les deux, les deux. et développer pec deck. Vous fermez, vous ouvrez. voilà voilà. bu ngeen amulee lii. avec le poids du corps ak loxo yi rek noonu. juste avec le poids du corps. ok donc maximum de répétition jusqu'à sensation de brûlure. juste là voilà. vous faites donc sans les sans les petits haltères. voilà donc. kër yëpp am na chaise ah. kër yëpp am na chaise voilà parfait donc vous gardez en de 90 degrés voilà vous fermez vous ouvrez. <laughs> maximum de répétition donc jusqu'à sensation de brûlure. et là vous travaillez là vous travaillez la poitrine. vous voyez deuxième exercice pour la poitrine cette fois-ci donc les push-ups ou donc les pompes comme on dit souvent. maintenant vous pouvez votre step ou bien toujours les chaises. brosser brosser. En option, vous gardez les genoux au sol, vers le bas, et vous remontez. Ce qu'il ne faut pas faire, donc, c'est de faire bouger la hanche. Donc là, vous la gardez fixe, vous descendez et vous remontez. Plus avancé, à l'aise. Plus avancé, voilà. Complètement tendu. <laughs> Comex, les mains. Man damay animé. On décolle les genoux. Man Pape Serre. Pousse la pointe. Damay animé. Voilà. Et là, vous... Et on remonte. <laughs> Fixe, voilà. On inspire en bas, on expire en haut. D'accord Parfait. Et donc là, c'est le niveau avancé, donc niveau 3. C'est bon, Ex, c'est bon, c'est bon. C'est bon, voilà, Ex, super. Bon. Et maintenant, pour les dorsaux, c'est au contraire. Mm -hmm. Cette fois-ci, on va changer la prise. On va changer la prise, les deux haltères. Juste là. Donc la prise en circulation, là, vous tirez vers l'arrière. Ah, ah, ah. Là, vous travaillez les biceps. Vous tirez vers l'arrière et vous relâchez, voilà. Vous tirez, vous tirez, et vous relâchez. Donc là, vous travaillez donc cette partie. À chaque fois que vous tirez, donc vous devez rapprocher les omoplates. Voilà, vous les rapprochez et là, vous relâchez. Vous voyez Donc là, vous travaillez les dorsaux. Parfait. Même chose, les coups carrément vers l'arrière, carrément vers l'arrière et vous relâchez. C'est bon Allez, dernier, dernier, cette fois, c'est la même chose. Je peux vous prêter... Euh, dernier, cette fois, on va isoler. Juste là, Juste avec une haltère, vous tirez vers le haut et vous relâchez. Vous voyez Là aussi, vous travaillez les dorsaux. Vous travaillez les dorsaux. Inspirez, expirez. Donc, chez vous, vous pouvez le faire. Ou bien dans votre bureau, donc ça dépend de vous. Donc, au lieu de rester donc, sans rien faire, vous n'avez pas le temps d'aller faire du sport, vous n'avez pas le temps d'aller en salle. Donc, chez vous, avec de, avec de la chaise, votre table, donc vous pouvez faire euh, votre activité euh, physique quotidienne. c'est tout pour ce matin. Ben merci. Donc je vous donne rendez la prochaine fois. Inch'Allah. Prenez soin bonne journée. Et puis euh, mën nañ la fekk il faut le il faut le rappeler euh, Olympique Club. Olympique Club voilà Olympique Club. Parfait. la fa fekk toute la journée Il y a d'autres coachs aussi. am na ay culture yu gën a taxe foofu. <laughs> allez merci bonne journée. merci à demain voilà quelques euh, euh, seen ay biir kër gis ngeen ni simple na même bu fekkee yenn accessoires yi amul leen ko euh, vous allez vous rendre compte que ak yenn yi nekk autour de nous mën nañu jëriñ pour sport par exemple chaise am na ci bureau bu nekk boo ko jëlee nga def ci quelques exercices mën nga nekk en pleine forme toute la journée ñu ngi leen di xaar ah. mën ngeen a woote ku dugg ñu jox la sa départ su kër et puis bu ñu demee ba heures euh, ci dernière partie yeewu leen bi euh, dinañu àndandoo ak BMW ex bàyyil saxami bi lan moo la dal ni yow est-ce que nit nga ah c'est quoi ces histoires de saxami la ah voilà donc euh, bu ngeen duggee ñu jox leen seen yu baax juste vous rappeler que ñu ngi ànd ak siège alors siège